voisins immédiats yi ci cadre UEMOA ci cadre CEDEAO doog a dugg nag ci Afrique parce que ay panafricains lañu ay panafricanistes lañu dañ ko réclamer dañ ko assumer ñu am luñ ci développé doog a wax nag ñu jëm ci àdduna bi naka la def ba ubbeeku ci àdduna bi loolu mbokk yi mooy li ñu fas tey mu dañ ko bind rek ne bind nañu teg kenn ku ku ko soxla dem librairie jënd ko liir waaye dañoo bëgg gannaaw originalité bi nga xam ne du man maa ko wax waaye sénégalais ko ko wax mooy jël initiative bind lu mel nii proposé ko sénégalais yi ñaareel originalité bi mooy ñu ñëw d'accord jàkk arloo ak ay borom xam-xam ne leen nag téere baa ngi nii lu ngeen ci àndul ne ànduma ci yu ngeen ànd leen ànd naa ci ci forme ak ci fond ñu waxtaan ci waxtaan boo xam ne sénégalais yëpp dañ koy seetaan moo tax ñu koy def en direct tey ci télévision kon lii mooy li ma bëggoon introduire waaye tey xam ngeen ni première partie man invité laa ci man invité Khadim Bamba Diagne la invité Cheikh Yérim Seck la invité Pape Cheikh la donc maa ngi jébbal sama bopp ñoom ñi nga ne ñoo ma nar a dëpp ki ji ñoo war yoone ci Sénégal yi bu ko defee ñu def premier parti boobu bu loolu weesoo nag ñun ñoo moom suñu deuxième parti bu soobee yàlla dinañ def suñu meeting politique asalaamaaleykum non dafa fàtte présenté yeneen téléspectateurs yeneen journalistes yi benn côté bi laa gisoon defe naa organisateurs yi dafa ngi doon wax ana ñoom Pape Alé yi waruñu woon côté bii donc invité Pape Alé Niang la invité Maïmouna Ndour Faye la waaye tamit invité Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Ndiaye moom defe naa waxuñu ko woon ni mi ngi ci plateau bi waaye tam bi ah Cheikh Tidiane Mbaye professeur Cheikh Tidiane Mbaye sociologue seen invité la donc euh, maa ngi seen loxo.